ci saal bi ma ne sama saal yi ma tëdd bu fi benn politicien bu ànd ma Macky Sall teg tànkam. Mhm. loolu moom wax naa leen ko ci bu leer. loolu loolu loolu def naa leer na Pa euh, Pa Assane. Euh, peut-être échanger. woy euh, juste peut-être quelques minutes encore. Abdou Karim. waaw waaw ngi ziar yal na yàlla sàmm la. amiin amiin jërëjëf. sàmm mboolem jullit ak bépp sénégalais ak bépp séné bu dëggu. Mhm. sénégalais bu matadi nag ni man. yal na mhm. yàlla jubbanti la. amiin amiin amiin loolu daal yow sunu waxtaan xajul fi. dëgg la dëgg la mu ngoog mhm. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf kon euh, kon Karim euh, ñu lay gërëm di la sant. waaw maa ngi sant di la xaar di la xaar lundi. mën nañu ko waxee noonu ndaw lu ma dafa tëjee rek. waaw par rapport ak euh, Pape Alé boobu. waaw. ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax nit yu mel ni Pape Alé Niang Sénégal. Hmm. ay nit yu mel ni Ousmane Sonko ay nit yu mel ni ay Bougane Gueye Dany moomu. ay nit yu mel ni ay nit yoo xam ne ñu ngi xeexal Sénégal ñu ngi xeex te ànd nañu Guy Marius Sagna non Guy Marius Sagna kenn waxatu ko mm. moom mooy ndey mbili cest à juste rek pour wax ni Pape Alé Niang instant yi ñu ko fekkoon mu yor socc goro sax ñu ne joué bon la yor <laughs> yooyu na ko gars yi bàyyi xel bu baax c'est très important <laughs> waaw mais alhamdulilah le peuple sénégalais ils ont compris quoi waaw <laughs> jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf euh, Karim Karim on se donne rendez-vous waaw waaw dëgg la incha allah ba léegi incha allah dinañ ñëw mm-hmm. commencé waat grande gueule nañu gars yi xaar ñu ñëw ak actualité yi incha allah wax leen taxaw xëy waalo gën a ay daal ci gàttal. waaw mais gerte fi place de. Ah, a waaw ah, amul problème su waaw kon ñu lay gërëm baax a baax di la voilà ñu lay ñu lay gërëm baax a baax di la souhaiter également un très bon rétablissement une bonne convalescence euh, et revient euh, pour nous revenir en force lundi euh, ñu war a xajal nag Ndeye Khady Diouf mi nga xam ne mooy moo ñu war a indil xibaar yi di gërëm Ndeye Dime Ndaw di gërëm Pa Assane Pa Mactar Diallo Ibrahima Pouy Chérif Bekaay xam naa lundi la ñuy gisantewaat ñuy ñaanal ñëpp week-endu jàmm di remercier ñëpp di gërëm sunu mbokk auditeurs yi tey gis nga émission bi ni mu demee dañ leen ciy gërëm di leen sant ba altine incha allah Euh, beneen émission les grandes gueules